ak mairie kese parce que mairie yi moom ku leen ko bàyyee parfois moom. Mhm. Euh, ñu taal dëkk bi. ñu taal dëkk bi beneen sujet rapidement ñu daal di ci ñëw Pape Moussa euh, CEDEAO gis nañ ne état yi nga xam ne nii ñoo ci bokk amaloon nañ ab ndaje euh, ki lee di président Bassirou Diomaye jaxaar fay mu ngi fa woon ñu gis ne tamit am na dogal buñ ko buñ fa jël wala it sas buñ ko jox moom ak ki lee di Faure Gnassingbé bu waa Togo ngir rek ñoom ñu daal di wax ak. ñi nga xamante ne bi euh, ñoo féete ci alliance des états du Sahel muy euh, loo xamante ne bi benn mission la bu leen jox euh, mais gis nañu tamit ñoom ñu daal di àdduna ñoom seen position tey lañ ci gën a taxaw donc ndax lu ni mel proposition boobu pour ñoom ñu defi médiation boobu mbaa du doon benn cadeau empoisonné wala ndax dina doon lu lu yomb ci ñoom alliance des états du Sahel devenue mm. confédération des états du Sahel mm-hmm. euh, parce que ñu bëri dañuy jaawale confédération ak fédération mm. ce n'est pas la même chose du tout mm-hmm. fédération mooy comme un état fédéral mm. États-Unis euh, Nigéria yooyu Euh, ay états fédéraux lañ dañoo boole jël seen souveraineté bàyyi ko ñu nekk benn état. Mhm. bokkul ak confédération nga xamante ne chacun garde sa souveraineté. Ah. alors léegi euh, le président Diomaye. Ah. wala boog euh, ñoom ni doxalee ak dafa mel ni sa ressemble un peu ci benn paradox demal nga négocier ak ñoom. tout en prenant des mesures qui ressemblent à des sanctions j'ai entendu ñuy wax ne léegi da kuy dem ci ñooñu noonu da ngay wut visa vous vous rendez compte. moom nee nañ c'est pas doonul lu officiel. mais dañu ne lu war a mën a nekk la bu jógeewul ci fu ñu maanaam appliqué tegaguñ ko quoi. mais waruñ koo mën a xalaat sax. parce que euh, maam Khady diggante Mali ak Sénégal. Mhm. nga xamante ne ci même document administratif lañ am indépendance ñoom ñaar ñëpp. Mhm. boo demee seen drapeau vert jaune rouge étoile bi rek moom moo leen séparé. Mhm. devise Mali un peuple un but une foi la. parce que bul fàtte on avait une fédération. nekkoon benn benn benn benn benn réew. Euh, ñu ci diggante boobu ngay wax waxu visa. c'est quand même euh, compromettre même l'objectif u CEDEAO la bu bu njëkk ba la ñu la ñu la ñu la ñu la ñuy violer carrément mais CEDEAO aussi il faut leur dire la vérité c'est-à-dire mënatuñoo nekk benn instrument euh, de la France mënatuñoo nekk benn euh, euh, mécanisme boo xamante ne day pérenniser ce ce mécanisme euh, de colonisation ou de néocolonisation cadre bi baax na man je suis d' accord avec le cadre de la CEDEAO bokkoo ci ñuy gis ne dañ ko war a éliminer non non pas du tout pas du tout parce que parce que on est dans l'ère des grands ensembles mhm. cadre bi baax na même parfois yenn mécanisme juridique yi baax na problème bi mooy pratique yi nga xamante ne ñoom ñoo fay nekk. Ah, à chaque fois au lieu mu constituer benn entité sous-régionale au service des peuples mais au service parfois de leur président. Mhm. Euh, de leurs membres donc kon sa ressemble un peu ci benn syndicat. Mhm. Euh, euh, te it alliance des états du Sahel. Mhm. dañoo xaw a am une orientation russe. Euh, caagini ne da ngay jël euh, li nga li France takoon sa baat nga tekki ko takkal ko Russie du loolu mais il faut reconnaître que ni Russie effectivement mësuta am une volonté euh, de colonisation de nuisance. Mm-hmm. piller économie Afrique. comme ni ko France di defee te tey jii nii booy wax ñu naan la wëy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom ñoo am une connotation russe de la politique di wax waxu démocratie ak euh, ma lan chaque jour dañuy wax yooyu noonu mais n'oublie pas que la France biy joxe leçon de démocratie moom dafay soutenir ay coup d'état en Afrique mm. tey ay meurtre en Afrique et je te donne des cas précis Mahamat Idriss Déby Itno bii taxaw nekk au pouvoir au Tchad France moo ko soutenir mm. il est venu au pouvoir comment ce n'est pas par les urnes putsch la te pourtant France soutenir na ko. Euh, Égypte euh, Mohamed Morsi dañ ko fal euh, démocratiquement al si ñëw def coup d'état ñoom ñëpp ñu soutenir coup d'état bi parce que Mohamed Morsi est un frère musulman. le nord du Mali mais opération Serval bu ñuy wax CEDEAO ñëw na keneen ñëw na mais est-ce que dafa andi jàmm. Mm-hmm. andiwu ko fa au contraire dafa gën enforcer problème bi teewut France ma ngay piller la mu soxla ci économie donc euh, comme disait le général de Gaulle ils ne sont pas nos amis ils défendent leurs intérêts alors léegi nag lan mooy tax parfois la politique russe neex ma hmm. mooy ne dominé wu la piller wul dara xam nga lu mu soxla hmm. jéemal moom sa bopp parce que kii liy ñëw noot la moom nooteel bii mu la doot moo ko def puissance certes c'est euh, c'est une question de rivalité n'oublie wow, pas la guerre ñuy parce que oui, wow. n'oublie pas la guerre froide bloc bipolarisation prix tamit bipolarisation Russie waaw mais Russie soxlawul soxlawul nord la hmm. non parce que bu ñu waxee waxu dualité li mu ci gagné mooy bu France jël tegee loxoom hmm. France day wàcc sur le plan économique moom mu euh, féetee ko kaw loolu rek la ci soxla du coup Russie musul mosul musul musul euh, coloniser kenn en Afrique musoo mm-hmm. de on peut dire Wagner lan la mais Wagner ce n'est pas officiellement l'état russe donc kon tey jii nii euh, entité CEDEAO boobu noonu loolu la war a bàyyi. Mm. topp France euh, défendre plus d'intérêt parce que c'est la France qui paye ah. c'est elle qui paye la note de CEDEAO fu la neex ngay xool donc kon CEDEAO fu neex France lay xool donc l'entité le cadre les orientations économiques et juridiques yooyu noonu yëpp baax na mais avec le contenu de la l'AES le cadre avec le contenu de l'AS parce que effectivement ñoom it du dara lu leen orienté vers la Russie que seen souveraineté or dañu am war a am ay organisation sous régionales yoo xamante ne man lay wax léegi que ne on est dans l'ère des grands ensembles yoo xamante ne une orientation indépendantiste souverainiste bañ a toppati euh, comme comme comme comme ay colonies on est plus colonisé il faut que il est temps que ñu assumer li nga xamante ni moom lañ doon moom moo tax tey jii nii euh, capitaine Traoré assimi ko c'est-à-dire dëgg-dëgg li nga xamante ne ñoom ñiy woowee seen bopp démocrate ak euh, taf yëngal ñoo am légitimité ñoom ñoo waroon taxaw taxawaay boobu noonu parce que boo amee légitimité populaire légitimité boobu lan la la war a jëriñ lu dul nga placer l'intérêt de sa askan au-dessus de tout mais da ngay am légitimité boobu ba pare mais plus am à la France que ñeneen parce que euh, si El Hadj Omar Bongo foo euh, fa Omar Bongo euh, Alassane Dramane Ouattara. Hmm. ak ñeneen ñi fi des quoi ces derniers Mohicans là. Mm. mais ñooñu bu dee ils ont été élus démocratiquement rek. Mm. ils ne doivent leur salut qu'au peuple yi nga xam ne moom la leen fal. lan moo tax ñu nekk ci recherche bu ne gàññ di dund extrême pauvreté euh, lépp nga yóbbul étranger. Mm-hmm. c'est donc kon tey jii ni euh, ces pays de la là loolu nga xamante ne ñu loolu lañ nekk loolu moom mooy dëgg bi mm-hmm. loolu moom mooy seen intérêt te ci loolu lañ war a nekk mm-hmm. léegi nag bon euh, parfois on peut dire oui France moom moo ñu dimbale ci nangam euh, base militaire française yi nangam nangam mais base militaire française yi amuñu fi njëriñ mm. buñ amoon njëriñ Mali du toj mm. te ay maliens tojuñu Mali mm. Oui, mais la rébellion Touareg qui est, qui, qui, qui, qui est depuis... Euh... <laughs> qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as Comme à l'émiré Vous me déconcentrez. La rébellion en 1964, bataille Magafa. Wow. Si nous avons Algérie, Algérie. Mm -hmm. euh, Madame Diapone, belle entité. moom moo toj le nord du Mali muy Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mm-hmm. Al-Qaïda ak mi. Al-Qaïda au Maghreb islamique boobu noonu moom moo fa ñëw éclaté wu. parce que ñoom dañoo muus ay algériens lañ xam nañ bu ñuy ñëw di revendiquer une certaine notoriété au Mali mën nañ am bañ a am guerre cause. ñu jël ay entité détaché ko comme Ansar Dine jox ko ku ñuy wax Yad Dangrali Yad kooku c' était l' ambassadeur du Mali euh, en Arabie Saoudite. Mm-hmm. Euh, mais euh, aussi c' est un Touareg. Mm-hmm. am une am un pour que buy revendiquer l'indépendance ñu mën a ne ah kii kat fii la dëkk parce que euh, waa ak mi ñu ay euh, ñoom euh, Abou Zaïd Mokhtar Bel Mokhtar ñooñ noonu ñëpp algérien lañ mais ni nga xamee ne ñoom ñoo bokk. mooy dañ demoon Niger dans les mines d'Areva. Mm. mooy fi ñuy exploité uranium yi. ñu mm. jël fa ay otage ay ay ay ay français yuy liggéey Areva ci diggante bi ki jël otage yi moom mooy benn leaderu ak mi la ñu koy wax Abou Zaïd. Mm. benn offensive française rey Abou Zaïd. des années plus tard ñi libérer les otages. nekk ci beneen entité. maanaam nekk bokk Ansar Dine ak ñoom Yadda Gaali ak yeneen ak yeneen donc kon ça veut dire que ni ñoom ñoo ñëw éclaté wu en plusieurs euh, trucs soutenu parfois par la France. soutenu par la France donc France may xeex moom mu ngi soutenir rebelle yi. di jàppale état bi di flirter euh, avec les maquisards ça veut dire la France casse ses œufs dans toutes les omelettes. Mm-hmm. ku ñor la mu lekk. Mm-hmm. na moytoo lekk lu tàng ci gémmiñ ci waaw <laughs> waaw euh, d'abord même.